macha allah jàngoon nañu booy tëdd boo yeewoo booy génn boo dugg si li ngay wax te ne dafa am point boo xamante ne tey jii moom la ñuy dugg moom la ñuy wax azulmu bu ñu waxee azulmu rek moom mooy tooñ borom bi subhanahu wa taala di ci wax ci ayat yu bare bare dañu am ay yuñ ci jukki baada auzu billahi min ashaytani rajim inna allaha la yazlimu nnaasa shay'an walakina annaasa anfusahum yazlimuun inna allaha la yazlimu la yazlimu misqaala zarra wa in taku xasanatun fa yudaa'ifuhu wa yu'ti min ladunhu ajran azima bu ñëwee ci xadiisul qudsi mi ngi naan yaa ibaadi inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu baynakum muharraman fala tazalamu allahu akbar mutafaqun alayhi borom bi subhaanahu wa taala de mi ngi wax ci wàllu tooñ moo xam yàlla nga tooñ moo xam mbindeef bi nga tooñ waaye moom daal leçon boobu li ñu jël tey <clears throat> tooñ du tuuti mën ngaa tooñ ci wax mën nga tooñ ci jëw mën nga tooñ ci ngóobu mën nga tooñ ci ci junj waaye mën nga tooñ e, mbindeef yi nga xamante ne ñëw na si suuf même bu dul ay nit di ay maladi xeetu ay gunóor yu yëpp ay tooñ la moo tax borom bi subhaanahu wa wax ne man mi yàlla de duma tooñ kenn si dara inna allaha laa yazlimu nnaasa shay'an yàlla nee na man duma ma tooñ doomu aadama bi du ko tooñ ci dara man du ma tooñ man borom bi subhaanahu wa tooñ kenn yéen kay yéen a may tooñ waaye man mii borom bi subhaanahu kenn ci dara waaye nag walakin annaasa anfusahum yazlimun man daal gis naa ba xool daal nit daal ndeke moom ci boppam mooy tooñ boppam waaye man du ma tooñ kenn man borom bi subhaanahu tooñ ci reetaan ku yàlla bind def ko nu ko neex muy doxe noo xamante moom mi di dox lii neexu ko tooñ ku yàlla bind ci ni mu defar mi woo ñooy wax nit dafa ñaaw ci ñaawaay waaye ñaawaay amul ndax yàlla moo bind ko ko neex eh, bu fekkoon loolu kon ku ñaaw du am alal wala duñ ko fal ab pal tooñ ci alalu jàmbur alalu jërim lu mel na ay sàcc nit agressé doomu aadama jaxase ay doomu aadama yëpp ay xeetu tooñ la yoo xamante ci wàllu naafeq lay dugg wàllu macha allah li nga xamante ne moom mooy eh, bàkkaar boo xamante ne bu rëy rey la it buñ ko xeeb moo tax yàlla na man duma tooñ nit ki si dara waaye gis naa ne daal nit daal mooy tooñ boppam kon yaay dem tooñ sa bopp loolu mooy tooñ sa bopp mooy tooñ sa moromu nit morom mbindeef yi soo ko defee yaa tooñ sa bopp ba dara fekk la ci boo jëlee loo warul jël yaa def boo waxee warul wax ba ñu woo la def soo sosee dara yaa def kon loolu la yàlla wax borom bi subhaanahu wa mi ngi waxaat ba léegi ci wàllu tooñ ci ay aayaat inna allaha la yazlimu misqala zarra yàlla nee na man mii de ba léegi man borom bi subhaanahu wa taala du ma tooñ nit du toll na popp pepp atum maam Alpha ginnaaw ba ñu nuyoo ñëpp dellu si waat di jaar ñëpp rek comme ni ñu ko waxee maam Alpha yàlla nee na du ma tooñ nit ki lu tol na pepp atum zarra kenn mënu koo gis bët mënu koo gis du ma ci tooñ tax ni man doomu aadama man yàlla du ma tooñ doomu aadama du ma mbindeef bi lu tol noonu waaw waaw laa yazlimu misqaala zarra waaw du ma tooñ kenn toll na pepp zarra wa in taku xasanatun fa yu daa su fi nekkee daal di def lu rafet rek lu baax rek mu ful ko rek waaw te de it wa yuuti min ladunhu ajran azima yemuma ci danaa leen jox ngeneel lu màgg a màgg ajran ngeneel la aziman bu rëy dégg nga kon nag soo defee lu rafet wax lu rafet dox lu rafet bu dee benn nga wa defoon yàlla dina ko ful mu mel ne fukk kon Eh, léeg-léeg nga gis nit ki di ree doomu aadama bi xool leen kenn ni muy doxe xool leen ni muy waxee te kooku dégg ko nga tooñ nit ki ëpp ko alal ëpp ko doole tooñ ko tëj ko te yaa ko tooñ de nga tooñ ko tëj ko ñëpp ñëw ñaan imaam yeeg chef de quartier yeeg notable ñëpp ñaan bàyyil nga bàyyi te nga bañ a bàyyi te fekk yow yaa ko tooñ mbokki am na ñu làq jant bi muy ndogal ci ñoom fekk dañ leen a tooñ. buñ leen fekkoon ci biir tey jii fañ leen tëj ah, toog ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo fexe ba ñu dugg foofu ku nekk wax sa yi bàmmeel wax sa diggante ak yàlla ah, fekk na dañ leen a tooñ waaye ña nga fa rek toog muñ am na it yenn ndogal la <clears throat> kon nag bu yomal xayamee loolu nag borom dina ko jëfe tooñ nit ki ba dugal ko sosal ko yaa jël lii yaa def lii te dara wóoru ci yan nañ yàlla musal ci loolu e yàlla mi ngi wax mu ne man mii borom bi subhaanahu wa taala inni naka man mi borom bi subhaanahu wa taala yaa ibaad yéen sama jaam yi <coughs> leen ma yéen lay waxal yàlla mooy wax ci xadisul kursi yaa ibaad yi sama jaam yi inni xaramtu zulma <coughs> man de aramal naa tooñ kon dafa aram waaye nag alaan loolu ma koy aramaan yëpp ala nafsi sama bopp laako ko njëkkee ba du ma tooñ kenn sama bokk araam gi ma ko araamal si sama bopp laako ko njëkkee du kenn ala nafsi waaye wajaaltuhu def naa ko kom seen diggante muharraman muy lu xaraam kon def naa seen diggante tooñ muy araam kon lu araam nag boo ko defee rek xam nga la ci fekk kon falaata zaalamu ay waay bu leen tooñ ay waay bu man mi yàlla aramal naa yéen tooñ ci yéen tooñ maa ngi ko njëkkee ci sama bopp def naa ko seen diggante mooy lu araam kon bu leen tooñ eh, mbokk yi yal nañu yàlla may dégg topp ku ci tooñ doomu aadama yaa ko tooñ demal ko soo ko tooñee ba tëj ko fexeel mu génn boo defoon plainte demal nga jàppale ko nga génne ko xam ne eh même bu la sax nga jéggal ko moo gën loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax bul rëy bul rus bul naagu demal nga baalo ko àq <clears throat> ndax yaa ko tooñ loolu mooy rôlu jullit dégg nga soo ko yorelee war koo fay amoo demal nga wax ak moom ci njëkk ak teraanga yëpp ci wàllu tooñ la kon yal na yàlla def defal ñu sutura yàlla jéggal ñu suñu bàkkaar ñu yem foofu incha allah eh, di déglu contribution yi macha allah <clears throat> di nuyu ñëpp soxna Adama yal na defal ko jàmm fi mu nekk eh, fa mu nekk yàlla na ko yàlla dafa réussite génn àdduna yàlla yàlla yërëm leen xaral leen yoonu àjjana dañuy ñoom imam malik imam alpha macha allah ñing hawa eh, ñoom assu ñoom ñëpp ak góor gi ma lamin macha allah aqulu ah, qawli hadha axukum imam muhammad Ndiaye wastaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin wa salaamu alaykum wa rahmatullah jégalu